ci ñaareelu pàcc bi euh, Pape merci nga fàttali ma ko di ngeen am seen rubrique la toile incha allahu rabbi donc mbay comme ni ñu ko waxee euh, xawante sutura rawatina jamono ji Sénégal moom yaakaar naa ne euh, bokk na ci lu ñu mën a gën a mën jamono ji rawatina internet beeg yeneen yu ni mel. wallaay ndeysaan jërëjëf Coro. Mhm. waaw mu mel ni ni ma koy faral di waxee dafa am ay mbir yu nu gane si. Mhm. yoo xamante ne ni xamuñu ko Mm-hmm. ci démb ak ci ci ñoomi maam mm-hmm. tey lënd bi moo ñu gën si ñun mbaali jokko yi nga ne internet mm-hmm. euh, am yu ci am yoo xam ne amaana bi muy gën a si ñu ci nit ñu ci war a wonoon na waajale wala tàggatun ñu ci nit ñu ci war a tàggate wala sàkkaluñ ñu ci ay gàpp nit ñu ko waroon a sàkkale ni ki yeneen réew yi nga xam ne sax bokk nañ ci ñi ko sos nan ci waajale woon seenu ñoñ boole tàggat leen ci ak xamal leen ci fi fi fi nga xamante ni fa lañ ca yem ñun nag nu xëy rekk mu dal ci suma kaw te waaj googu amatoon ci ñun moo tax ci ni ñu koy jëfandikoo ñaare mu am ay lëgg-lëgg tey ñuy dund ci jamono joo xamante nii euh, dafa am aw xewet wow ku di woy xel war na laa def njàqare ndax démb maam lu ñaw def ko daan nëbb mm-hmm. doonte dëgg la waaye tey ñu gis ne rek lu nit xamal moroomam ci lu ñaaw njëkkante sax daf ciy am ci kenn ku ci nekk indi ko ci pénc bi kenn xàmmeetul lu jekk ak lu jaadu lépp jaxasoo li jafe tey di ak nite am nga coro ñaare dañuy jaxase ñaar muy lu jekk ak lu jaadu. waaw xam nga niral bi ma la ci mën a jox. mën naa la ko jox tey ci ni ñuy solo. ñaara nga gis xale bu jigéen boo xam ne day sol xamante ni day jekk waaye du jaadu. xam nga boo demee ba wét ak sa boroom kër ci néeg mën ngaa sol loo xam ne ni dafay jekk jaadu. waaye ñaata nga gis loo xamante ni na muy jekke ca biir néeg ba ak sa boroom kër noonu nga koy génne ci mbedd mi yaakaar ne jaadu na ci pénc mi fekk jekk na ci waaye jaaduwul ci pénc moo tax ñaari dañuy jaxase lu jekk ak lu jaadu moo tax tey kenn xàmmeetul lu jekk lu jaadu moo tax it wax tamit am wax yoo xamante nii ci pénc dana fa jekk waaye du fa jaadu moo tax yooyu yëpp tey dafa jaxasoo li jafe tey di ak nite tey sax booy xool danoo dem ba mel ni ñu jànjing tënku njub walla mbaax tey dafa tinkeeku ñu bari boyal seeni làmmiñ boyal seeni làmmiñ euh, wax ju ñaaw amatul ab gàpp ñuy dañuy lu ñu tudd di dajale xaar bis ñëw duñ la xamal. boo lépp yëgle. ñii dañuy luñutu lu ñaw ñii di yëddu ñee di cerepu ak gëstu mbooti nit ñi lu la xamal nag walla nga xamal ko sab nawle weer ko weer ko xawi suturaam boo ko xamulut sax boo ko xamulut nga nar mbaa nga sos waaw ñii dañuy gëstu ñii di luñut ñii di cereb loo xamal sab nawle weer ko xawi suturam soo ko xamulut dara nga sosal ko mbaa nga nar foo jekku sab nawle toroxal ko di lor gor te gàcce xajul ci as gor mu mel ni dañoo dem a dem a dem a dem ba nga xam ne xawente sutura daal dañ ko faf sax jël def ko muy lu jaadu ngir yaatu gu mu yaatu ci jamono lan mooy ko sabab mm-hmm. wala lu ci nit ñi jublu mm-hmm. lu ko sabab mm-hmm. ak lu ci nit ñi jublu sabab bi nag fi jamono toll mooy ñu bari dañoo dëgmal alal di ko wut mu lew mbaa mu aram saw yoon te alal loo ko jal jal du jaas dangay ngay xëy bis wan lépp ginnaaw dëgmal weneenu yoon te gis na ne euh, jal alal mm-hmm. moo tax lu bari tey xew ci jamono mm-hmm. ndax dañu gis ne daanaka ñi gën a wax wax ju ñaaw tey mm-hmm. ñoom la ñuy gën a déglu li ñu jublu ci ñu leen di déglu mhm. mooy ñu am ay vues li nga jublu ci am ay vues mooy am ci ay koppar mhm. li nga jublu ci am ay koppar mhm. mooy dajale alal kon tey ndekete mbanjaxaanuk alal tey bu nu demee ba mu sukkandiku ci ay ñaaw ñaaw kon tey euh, alal tey mujj na faf doon gobar bi nga xamante ni mooy cor yeeli gor ya taxawoon tey sàkkoo mbaax kon kenn xamatul tey fu nit di mucce ñuy dëgmal am am di fëkk ak a këf ni ay maf ñu demee ba jamono toll foofu kon ñi di ay gor yu set wicc yu dara raxul seen dund tey ànd nak njaqare foo mën a nekk ak nu jamono mën a mel war nga mën a yéene mbaax di ko jëfe jamono ju ne te bañ koo lëf ndax wareef la ci ku ne mu sopp ak ci roy ci rasul te bañ a dof alal nag wolof day lépp ne mënul faj dee mhm. waaye mën na faj gàcce waaye dafa juum mhm. alal mënul faj dee mënul faj gàcce hmm. waaw alal mën na laa dindil gàcce waaye mënula la ko fajal hmm. ndax gàcce gi du daj mukk ci àddina mën ngaa génn ci gàcce gi boo génnee ci gàcce gi ba pare gàcce gi nekk ci yow fu la gis di la xoolee gàcce gi. dëgg la de. déggoo ma de. dégg nañ la euh, tey bari na ñoo xamante ne ni fekk nan as gor su liggéey alalam ba mu lew. Mm-hmm. ñu jaay ko doole jël ko. mu nar a am gàcce moom mi ko jël dem ak ka mu jël alalam ci yoon mm-hmm. alal jooju mu jël bari ga mu bare tax mu gere ci mbaa mu am num ci doxale ba mu jël dëgg jox ko mm-hmm. waroon nañ koo jàpp wala ñu war koo tëj waaye génn na ko bàyyi ko mu dem kon génn na ko ci gàcc waaye gàcc gi dañul ci moom mi ngi ci moom mm-hmm. fu ñu ko gis xam ne kii gor la toroxal jël alalam <laughs> dëgg la. duggul kaso de. gàcce teggeeku na ko. waaye gàcce gi ba léegi mu ngi ci moom ndax fu ñu ko gis xam ne kii dafa toroxal góor jël alalam. fu ñu ko gis gàcce googu rek lañ koy xoole am na ñooñ ci misaal ci nëral jël nañu xale bu jigéen am fu nu lu mu séq ak moom. Mm-hmm. jox ko alal. ngir mu noppi wala mu dindi ko am déet waaye ndax gàcce gi gàcce gi loolu dindi na ko gàcce gi mais gàcce gi ba léegi mu ngi ci moom ndax fu ñu ko gis danañ xam ne kii moo jëfoon jëf ju ñaaw jooju waaye alal la ma taxoon mu mu mu dàq loolu alal ja la ko dàqee waaye gàcce gaa ngi ci moom moo tax alal euh, dina la dina la génn ci gàcce ba pare bàyyi laa gàcce gi moo tax du la fajal gàcce ga fexe ba bañ a dugg ci gàcce moom la la alal waroon a jariñ fexe ba bañ a dugg ci gàcce moom la la alal waroon na jariñ moo tax foo mën a ne ci jamono yéeneel mbaax di ko jëfe jamono ju ne te bañ koo luf ndax war na ku nekk sopp ak roy ci rasool te bañ a dof jamono ji nag jamono la ju lëndëm ngir bu ñu demee ba jël li nga xamante ni moo di ay mbóosóor bu ñu demee ba jël li nga xamante ni moo di ay safaan teg ci kanam la di woon mbaax ñu set wicc la di woon ay ngëneel ñu jël ko ginnaawal ko te li ko def lépp moo di njëkkalante ci wàllu am am ak ci wàllu alal te alal ak wërsëg ak euh, ndimbalum yàlla yooyu yëpp benn bu ci nekk dafa nduróog moroomam te bokkul. dëgg la alal wërsëg bu ci nekk dafa nduróog moroomam te bokkul. Mm-hmm. wërsëg ku nekk dégg na ci ay sët. ay sët ay bàmmeel. waaw hmm. sëg mooy fi ñuy denc ñi faatu ay sëg. Hmm. boo dee loo ko barile barile boo dee bu ñëwee ba ci sëg yi fa lay yem ak yow. dëgg la loo ci jiitalu toon ci sa bàmmeel du la fa fekk. Hmm. moo tax ñu tuddee ko wërsëg. sëg yi rek lay wër ak yow. su ñëwee gunge la ba ci sëg yi ñu wër sëg yi. ñu ne xool leen lii lépp ci wërsëgam la bokk. waaye foofa lay yem de. loo ci lu jiitalutoon doo ko fekk mm-hmm. moo tax ñu naan ko wërsëg alal nag lu bari bari bari bari boo nelawee fàtte boo dee ñàkk mm-hmm. waaw doo ci yóbbaale dara ndimbalum yàlla moo jara ñaan ndax dinga faj li gor yi di faj li ñuy mën a liggéey li ñuy faj mm-hmm. te doo daj li ñuy liggéey di daj loolu mooy ndimbalam yàlla moo tax àdduna jarta yàkkamti hmm. jarta yàkkamti ndax sama benn waa ju baax ndeysaan hmm. day faral di jëfandikoo nag aw ñoll ñaare bu ko jëlee ba am fu mu toll lu mu la wax rek bu yeboo nga bind ko téere ñoll mooy bi ñuy muqi wala bi ñuy naan <laughs> moo moo dajale yooyu ah. yëpp yi lay tàggaleeg sa sago <laughs> waaw euh, moom moom nag biñ ci biñ ciy gàllaxndikoo moom lay moom moom la moom la mujjee di jël biñ ciy gàllaxndikoo <laughs> ndeysaan ko mosee bu ko jëlee ba ba am fu mu ci toll rek boo ko jegee lu mu la wax rek muy téere hmm. euh, booy bu nice nag la may woowe waaw booy bu nice <laughs> mu ne ma booy bu nice ma ne ko waaw mu ne ma àdduna du course de vitesse mm-hmm. course de fond ne àdduna du course de vitesse course de fond la wallaay euh, mel na mu mu baax ne woon ma àdduna course yàlla joxe na départ bi mu ne ma kenn ku nekk sa jikko mooy sa accélérateur waaye sa xol mooy say frein hmm. waaw mu ne ma kenn ku nekk sa jikko mooy sa accélérateur hmm. waaye sa xol mooy say frein kon ku eggut mu ne ma xoolal sa fii waaw moo tax ñaare nga gis nit di wax loo xamante ni baa mu koy jëf fii yam rek moo ko tooñ kon macha allah rabbi wax ju ñaaw daal euh, baaxul mm-hmm. te ñun ñëpp ñoo bokk suñu réew di ay nit ñu baax soqe ko fu baax suñuy maam baax lool te tedd daan sànkante sutura daan nga ci xamal nit lu ñaaw waaye rek nga nëbbal ko ko di ko ko nëbbal ba faaf sax nëbb gën ko koy nëbbal tax mu rusatee def lu ñaaw ndax dina ne waaw man nii xamal nañ ma lii mm-hmm. waaye kenn waxuma ko kenn waxuma ko jamono ñu rek ngay xalaat di tiit ndax ñu waxal la ko waaye rek ñu nëbbal la ko rek. Mm-hmm. ñu la koy nëbbal rek. amaana sax bu nit toogee ñu xool ci sa mbir benn bu baax ñu la koy waxal di la ko waxal di la ko waxal ba nga ne waa man ndax sama lu ñaaw li ma doon def dañ koo xamut wala dañ koo fàtte wala lu tax waxaloon ma ko moo ne xam nañ ko mhm. waaye lu tax waxaloon ma ko mhm. lu tax léegi ñu may waxal benn bu baax li nga xam ne moom doo ko laa def mhm. kon daal sama deret mayatuma mukk ci àddina may defatu lu ñaw ñii di ko bis baa ñu koy dégg moo tax ci seenu mbaax walla ci nit ci mbaax gi muy mbaax ci la daan ci la daan sëq wala mu coppati baaxale ci ab nawleem waaye loo xamal sa nawla rek ndeysaan te moo ne ñun ñëpp kenn ku ci nekk am na lu la yàlla xamal waaye mu ndëbbal la ko rek mu ndëbbal la ko ngay dem rek dëgg la boo xëyee sangu ba set sol lu rafet génn ñaari sax nga dajeek ni ndeysaan mu taf la ci ab dënnam di la waxal lu baax rek sopp la lool bëgg la lool te am na loo xam ne bu ko yàlla wonoon ci yow rek mu bañ la mbaa doot la bëggatee mbaa doot la bëggatee teg bët yaa ngi sax di xunc ci sa deru nawle di ko yëkk musiba amaana sax dem nga ci sëriñ liggéey ko amaana sax yàqal nga ko jaxase nga ko nit ba ab liggéeyam yàqu walla ay mbiram yàqu waaye yàlla nëbb ko mu bëgg la lool bu la gisee taf ci dënnam te lu ko naqari ci àddina yëpp yàqu ko teg waaye yàlla du ko nëbb dafa def kiiraay sa diggante ak moom ba moom xamu ko cëy bu ko yàlla bu yàlla xayu woon sa sutura waaw kon sutura soo suñu yàlla muur làmben ko lu tax mënun na ko làmbante ci suñ biir suturaalante ko ci suñ biir te muy li gën lépp lépp sutura la moo tax yàlla wàcceel ñu guddi ndeysaan wallaay moo tax mu jox ñu am xel ñu mën a ñëw ay yëre di ko sol di ko mm. suturloo gis nga ma wax la benn secret mm. maam Adama ak Awa bi ñu nekkee àjjana yàlla na leen àjjanaa ngi yéen ko moom waaye garab gi rekk bu leen ko laal mhm. mu laal garab gi ay wax sutura doole ji sutura am laa lay wax bi mhm. nu laalee garab gi mhm. seen yére moo naaw seen sutura xawee ko waaye li nekkoon seen yitte biir àjjana waaw mooy fexe ba suturlu fexe ba suturlu waaye lu nu daw jëm ci yow ngir suturloo ko loola day daw ba leen fa suñ dawee jëm ci miir pour taf fa seen jëmm pour suturlu ci miir ba day daw mm-hmm. bu nu gisee fee menn mbalaan pour daw jël mbalaan mi suturloo ko mbalaan ma day daw mm-hmm. lu nu jub mu daw mu daw lu nu suturloo lu nu jub rek mu daw genn garab gu ñuy wax fuddën fuddan moo taxaw xaar leen ñu daw fuddën taxaw xaar leen ñu ñëw fàq ci fuddën suturloo ko fuddan <laughs> moo tax boroom xam-xam yi naan fuddën ku mu nekk ci saw yaram du tàggu mbitti te ku ko deyalee dem àjjana waaw ku mu nekk ci saw yaram doo tàggoog mbëtte te ku ko deyalee dem àjjana moo tax ñu naan jigéen benn procès rek lay dem ak jëkkëram yeey ko mooy dama bëgg fuddanu mu ne ko doo fuddanu <laughs> waaw moo tax nga gis kon sutura mu baree doole kon ku xawi sa suturaas morom rek yaa ko tey mm-hmm. ndax am na loo xamal sa bopp te doo ko wax mukk dëgg defee ñu teg foofu suñu baaraam soxna Coro mm-hmm. ba beneen alxames ci kàttanu yàlla ak amati na solo bu baax a baax mbay Babacar mu nekk sujet d' actualité comme ni ñu ko waxee ndax ku ne xam na ne Sénégal jamono ji bañante mhm. sutura comme ni nga ko waxee mu am na fi doole lool lool lool ci kaw. diw lii laa ko xamal. dañuy mhm. dem sax ba dañuy jéggi ñun suñu ay bopp waaye itam dem ba ci suñu ay kilifa. Mhm. ku ci nekk la mu xamal sa baay wala la mu xamal sa ndey daal di koy génne. teg ko ci place publique bi ngir oññante sutura mais il faut ñu taxaw ci lan moo waral lu ni mel bu ñu defee jàngat jàngat. boobee ñuy def bokk na mhm. ci euh, at yi passé daanaka amu mhm. fi woon mhm. xalaatuñu ko te la mag ña nekkoon daanaka ci lañ ne mais suñ demee ba euh, jeune génération bi wala sax ñu gis ñoo xam ne ne ci génération bu démb bi ndax 10 ans ci ginnaaw 20 ans ci ginnaaw am na ci ñoo xam ne ñu ngi fi woon alors que ñoom ci seen bopp jamono jooju dunduñu woon lool te jamono jii ñu wax ak ak yow ñoom ñu ngi koy dund alors que ñoom seeni ay euh, at avancé na bu baax a baax a baax ñaar rek moo ko waral coro <laughs> moo tax euh, li ma waxoon rek euh, nani nani xelu tey mooy njombe boole di càmbar ak di nattale waro gi am ñoog tugal ci ni ñuy dunde baax yi maam yaa ngi di baax ñu jëlale mm-hmm. jëggi lu dul yiw jëfe xay jafe mu di toppandoo bu yàggee sànke mm-hmm. ñaari ko waral bi ci njëkk mooy jëggi dañoo dem indi leneen lu bokkul ci ñun mm-hmm. euh, lan lan indi lan lan dem jëggi mhm. maanaam lan lan dem indi boole ko ci ñun te bokkutoon ci ñun mhm. euh, bi ci njëkk mooy buzz mhm. boo xoolee baat bi sax du baatu du baat boo xam ne euh, aw làkkam am na ci sunum réew baat bi wala am na ci réew mi baatu buzz baat buzz baat bi wan làkk la bokk ci wan làkk la bokk la du anglais la. Mhm. ndax réew mi am na ñoo xamante ni seen i maam ay anglais lan ñuy làkk anglais dëkk ci réew mi Sénégal. Mhm. xanaa bu jiggaaniwul yaakaar naa ko ñoo xam ne boo wàññee seen juróom-ñaari maam ñëpp ñu doon ay anglais yu weex. nekk fii ci réew mi. amu am na fi. Mhm. xam naa bu fi amee it mu mu dina baat bi dañ koo jéggi kon. ko dem jëlee ko feneen andi. baat boobu nag di baatu buzz. te xamuñu dëgg dëgg dëgg dëgg lu mu wundu mm-hmm. mbaa suñu xamee dëgg dëgg lu mu wundu mm-hmm. méngoowul ak sunuy baax mm-hmm. méngoowul ak sunu mbatit méngoowul ak sunu cosaan mbaa dëppoowunu kon dañ koo dem jéggi àbbi ko andi ko di ko dunde léegi nag ñépp di njëkkalante buzz am buzz ñan la wax ne ñoom ñoo am buzz danoo bàyyi ñi baax bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy fa la ñuy waxe fa la ñuy wane béréb yooyu ñoom ñoo jël ñi nga xamante ne nii dañuy wax lu ñaaw ak di ko def. Mm-hmm. ñu ne ñooñu la ñu jël teg ko ci kanam di leen wane ak di leen wax. Mm-hmm. ne leen yéen ñii yéen a am buzz. Mm-hmm. grave. ngoom mi amul xel te xamul luy buzz te bëgg na ñu xam ko bëgg na ñu dégg ko. mu ne kon naa fexe ba am buzz nan laay fexe ba am buzz kon naa naa def ni ñee wala naa ko wax mhm. mooy wax lu aw tas pénc saaga wax lu rëy wax lu ku loolu ku ko dégg taf sa gémmañ mhm. ah ñu daal di dem ci loolu mhm. ñépp di njëkkalante buzz am na fi ñoo xamante ne ni ñu mel ni man nga xam ne daanaka seeni wax amul solo wala sax waroon nañ leen bu naroon a wax tey. Mm-hmm. waroon nañoo ñëw neexal leen fay leen. Mm-hmm. nu noppi ñooñu tey ñoom la ñuy jël ñuy wax bu ko defee ñu daal ne bës bës mu law. Mm-hmm. bi ko ñaareel. mooy mbaali jokko yi dafa am koom mu ci dugg. soo demee ci réewi tugal yi lii di TikTok. am na ñoo xam ne commencé nañ ci di fayeeku mm-hmm. YouTube commencé nañ ci di fayeeku mm-hmm. léegi ñëpp daal di wit mm-hmm. ay chaîne YouTube ak TikTok comme moom xam ne mi ngi ciy dugg am ñoo xam ne mel nañu ni man du xam-xam du ab dayoo du du du du du ci lenn loo xam ne man nga ko def tey ngir man cee amee loo xamante ni xëy na. Mhm. lu lew lay doon te sell. Mhm. ngir mu jariñ la tey ak ëllëg. Mhm. waaye ginnaaw da mel ni tafaangoom te sax xam-xam bariwul. saw làmmiñ wu ñaaw nga yor. amoo looy bañ. amoo looy jomb. amoo looy rus. sóoraale woo ëllëg. ndax ëllëg du añ du reer waaye jar nay sedd. démb rek am na ku ma koy wax. ma ne ko ñu bari dandu dandu bàyyi xel ci ëllëg léegi kon nga ne naa jëfandikoo li nga xamante nii moom moo moom moo xew ci jamono ngir ma mën a am ay vie ngir ma mën a am koom-koom mais dafa am nga baal ma ah. mhm. dama am dama am benn benn vidéo boo xamee ne que daf ma dama ci dal sur internet mhm. sur Facebook précisément mais daf ma daf ma metti donte hmm. que sama yoon newu si waaw ah, sa yoon a ngi ci kay ndax ci réew mi nga dëkk waaw kay maanaam concerné wu ma directement quoi hmm, hmm. mais am naa benn benn naxaru ma si am boo xamee ne que coro ci moment boobu noonu ki ma gis mu def loolu su ma jege woon xam naa yoon dina am ci man loxo waaw maanaam waa ji moom ab animateur la ci benn chaîne YouTube wala chaîne yi internet yi. Oh. Mhm. mu invité. benn naataango artiste mbay moom ma daanal. benn naataango boo xamee nekk artiste la. Mhm. Mhm. mais fi ñu toog ñu ngi waxtaan ba ci digg ba. waa ji jël téléphone de moom animateur bi. te kii mu invité am na jabar am doom. mu woo benn xale bu jigéen def ko haut ci micro euh, euh, euh, cravate am. xale bu jigéen bi mu ne ko dégg naa ne que yow diw mii ma invité. da ngeen séqoon ba dafa am dafa da nga am ak moom doom te mu bañ ko. Oh. mais waa ji fi mu toog coro. ñàkk non mais c'est extraordinaire. Mm-hmm. mu mu waa ji ne ko mais yow diw looy def nii. ci plateau yu ba tey. et puis mm-hmm. direct sur internet. Mm-hmm. ci seen seen seen YouTube boo xam ne c'est très suivi. mu commencé di wax ak xale bu jigéen xale bu jigéen nag kan diw moomu la fii la ñu fekkoon di andi scénario. Oh. mais mm. waa ji mu toog. bon il est mais Thioro. dëgg la man suivre naa ko c'est pour dire que. Mm. c'est-à-dire nañu nañu ñi ñi nga xamee ne que ñoom ñoo moom euh, télévision internet yooyu c'est-à-dire dem nañ ba mënatul ñàkk quoi. c'est une réalité qui est là. ci ci environnement médiatique bi. mais dañu dimbali ba ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñuy ñi moom chaîne yooyu Thioro ah. nañuy jël les bonnes personnes ñu leen ñi teg ci kanamu nit ñi. nañuy jël de ces personnes ñu nga xamee ne au moins am nañ un tout petit peu de déontologie. Mhm. am nañ un tout petit peu d'éthique c'est-à-dire c'est des termes yoo xam ne on en parle on en parle mhm. et c'est pas forcément il nga jaar école pour am ko mais il faut au moins nga am le minimum d'éducation de base mhm. le minimum de de de de de de bonne si sa yaram rek automatiquement nga nga mën mais loolu dafa ñaaw dafa ñaaw rafetul rafetul rafetul mais aussi man bi ma ko suivre bi ma ko seetaanee ak waajeek nañu ko defee animateur bi man je me ñaar am na lu ñu wax li tax mbir mi am boo seetuwaatee dëgg dëgg dëgg parce que bu fekkente ne noonu la demee man sa nga uñi sama sutura ba mu toll noonu am naa droit yóbbu la ci yoon parce que ah. loolu vidéo la nit ñi seetaan nañ ko ah, donc man ci sama xel dama ne man est du artiste bi ak euh, euh, animateur bi waaw bëgg buzz li mbay si mbay baax xam nga man après sama xel foofu la ma yóbbu ndax gisaatuma ci benn yoon mu génn wax ci wala gis nañ fi démb rek ku góor koo xam ne ci otoom la ànd xale bu jigéen xale bu jigéen bi naa xale bu jigéen bi nangu na moom te xam naa ne dañ ko def ndax bës nangu na di ko wax ne yaa ma yóbboon ba tey ji nga indiwaar ma te fayoo ma yóbbu ma ba sa kër te fayoo ma mu koy defal koo xam ne nii nee na ku siiw la te nee na kooku day toog fu mu toog di wax ne ba dama bës bi ma am bis bu dañee ma xaru da koy wax donc ci mbirum buzz la ak yeneen yu ni mel Sénégal moo toll foofu àdduna moo toll foofu bëggoon nañ cee gën a xuus waaye waxtu bi waxtu nañu dab mu lay ndeysaan moo tax ma ne kenn xametul lu mm-hmm. a jaxasoo li jafe ngi noonu mm-hmm. man bi ma ci gën a naqar rek mm-hmm. rapidement coro waaw démb laa koy ci ustaas yi nekk si benn télé xam naa biñ koy filmer moom it yëgu ko. Mm-hmm. Euh, muy muy nekk si parce que parfois ñuy animé woo ko mu ñëw. Mm-hmm. di joxe. Mm-hmm. mais est-ce que loolu dëgg la ay jàngale yu am solo. est moom la authentique la ma moom la. xaw yëg na ko waaye xaw na ko niru. peut sax mu nekk koo xam da ko imité xëy na. solo mais gëm naa ne warta doon moom. mbaa su doonee moom loolu daal. wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xamante ni gënul. Mhm. Euh, macha allah soxna Coro moo tax daal. Mhm. sunu téléphone yi daal danoo dem ba suppi ko def ko ay fetal. Mhm. Ah. dëgg la mu ñuy di ci di ci rayante rek. <laughs> jërëjëf may baax amoon na solo vraiment waxtu wee ñu xoj waaye amoon na solo a baax di la di leen dig daje rek alxames ci kàttanu yàlla ci beneen jataayu li woon démb. di nuyu xar yi ak soppe yi